dal leen ak jàmm ñu koy taaxaan yéene kaay xëyndoo tàmbale ko l'évidence yéene kaay naka bi dikkaat ak Idrissa Seck mi war a amal ab déclaration bu naka nikitee ji yéene bi samp na ab laaj nee naka yéene kaay bi ne am na luy xeeñ ci diggante Idrissa Seck ak Macky Sall Macky Sall ak ay basam de nouvelle conquête nag Macky loola waaj président Macky Sall naka moo ngay dajalawaatal njobootam pour 2024 des mises en garde maanaam tëkku bi nga xamante a xajamal réew mi xamante nar ngaa ñu tegaat la yoon les cours suspendus le secondaire nag en grève supérieur averti yéeni kaay bi nag njàng meeg njàngale bi nag nar naa salfaañu si ayu bés ndax feetu nag vacances yi dal dañ koy anticiper lu bëri nag njot nañ ne ay photo retour nag di menacé nag ak dankaafu nag képp xamante nar indi nag ab liixi leexa ci réew mi nag yéeni kaay bi duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg ko sur les roses la d'appel bu Thiès nag estime ab saisie boo xamante si sans objet la la cour suprême nag daal dina annulé nag requête nga xamante si homme d'affaires bi publié nañ ko manifestation bi nga xamante ni xeeñ ci dëkk bi ci procès Prodac boobee semaine à feu semaine boo xamante ni bu mu dund nag jër fii ci diwaanu Dakaaru yéene kaay bi ne idi compagnie mag yi ndax dafa doon loo xamante dafa nar jeex yéene kaay yu xëy nañ de la république avion bi mu yor da koy dal di jaay ngir wane ne nag ab signal fort la yéenekaay bi Abdou Mbaye naka di bi ne ay seen domaine naka Macky Sall fil sa tenue générale idi le dernier coup de poker yéene kaay bi daanaka bu ko du ko neex dara ndax fukki at benn yoo xamante def na ko ci mi yéene kaay bi ne ay scandale ak it caxat-caxateeg bambulaa kese lañ fi dal dee nekk nag naka moo di ndey caare boomi nag la mu xamle moo di moom lesbienne candidat ci troisième candidature second quinquennat Macky Sall Elan ak AS naka benn bokk yaakaar jël na ab date pour 2024 fi wax rek moo naka pare na ndax daay doonu candidat am de lu mu nekk ñu koy xaarandi bu baax a Mara se déshabille moom Idrissa Seck nag fi naka pare na dina wax ak ñi nga xamante ni moo champion d'Afrique 11 ans de performance de projet de réalisation le point yéene kaay ne Macky lu ko waay mun di waxee tamit def na jéego boo ci dal dina koy def lii quotidien jógee foofu nag waxaat laaj dal dee samp diggante Idrissa Seck ak ndax Idrissa Seck ndax moom nag bëgg-bëggaam mu doon président de la république waaye nag loolee nag ci atum ren ji laay leer ndax Idrissa Seck dafay sóobaat laaj boppu réew mi am déet waaye grand place yéeni kaay dikkaat na ci hypothétique troisième mandat président Macky Sall ay nouvelle réaction yoo xamante jot nañ ko am na naka amul droit ñaari Benno Bokk Yaakaar ñaari leaders Benno Bokk Yaakaar naka xelti xelti am seen diggante jamono ji nga xamante ni ñoo amal benno ñoo amal assemblée générale moo di Racine Talla xamante ni moo Yaya Ba naka daanaka luñ fa defut ñoom ñaar rek dañ koo naka manif de Yewwi Askan Wi procès naka président Macky Sall secrétaire exécutif APR naka ce sont pas des manifestations bu nga xamante ni ci moo mën a yàq li

mooy fula ji liggéey réew mi te bàyyi kon ñoo ko déggandoo jaa ngeen jëf ba ëllëg